صاحب المجد والشرف أصل كل الموجود وسبب كل مدود الشاهد والمشهود من انتدت من سر لاهوته المعاني وقامت بنور ناسوته الأواني صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما تتجدد ما تتجدد التجليات من الأدل إلى الأبد asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ci pas-pas noo ngi leen di nuyu di jiital nuyoo bi sunu sëriñ sunu yaakaar tey ak ëllëg muy mel ni rekk yéene sëriñ Tuubaa bi mu amoon ci cant yàlla dafay mel ni jotaay bi wane na ko xam naa mbokk yi daanuma laaj yéene ban la yéene woon Sëriñ Tuubaa daa waxoon ni nawaytu shukrahu ilal jinaani bir ruuxi wal jasadi wal janaani nee na yéene gi ma am ci sant suñ borom subhanahu wa taala yéene la goog dama koy sant ba tab biir àjjana waaye maa ngi koy defee ci sama ruux di ko defee ci sama yaram di ko defee ci sama xol damay laaj nag ci jotaay bi ndax yéene bopp mat na wala matul gaa yi yëg nañ ko ci seeni ruux am na wala amut yëg nañ ko seeni ruux ndax lii dundal ruux yi may kalima laa ilaha illa allah gaa yi yëg nañ ko seeni jëmm mooy ñaq nañ tey xep yaram yëpp xam nañ ni yëg nañ baat bi bu baax a baax a baax waaye gaa yi yëg nañ ko ci seeni xol te xol li moom bu xasee ba yëg rek léppay baax kon feeg màggal di dellusiwaat moom lépp ay baax loolu moom lu leer te bu ñu bàyyi xel cant gi tamit ni ko Serigne Touba waxee du cant goog daa yam ci mulk bi kase ndax ruux jasad janaan ku ko xam-xam ni cant gi day bàyyi ko mulk sar ba malakut génn malakut ja jabarut ba kere àgg feneen te loolee sëriñ bi mooñ ko xamal kon nag nañ santaat yàlla bu baax te xam ni fii ñu nekk képp moo mat a nekk ndax ab sëriñ da lay mënal fii mënal la fañ jëm man talabal wusulu lil jalil fal yactasim bi sunnati rasul bi an yulaazima mutian la yamin fi dahirin wa batini an sabil yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada te loolee la sëriñ bi dëkk ak ñun mooy sëriñ Tuubaa daa xam ne képp koo xam ne da nga sàkku topp wala àgg ci sa boroom na nga ngooy ci sunu yonent bi sallallahu alayhi waaye ngooy ci koo xamante ni daf lay jàngal xam-xam nekk sa nekk sa cheikhu taalim jàng tarbiya la nekk sa cheikhu tarbiya yéegal sa nekk sa cheikhu tarqiya te lii moom képp koo xam ne ama ko Sëriñ Tuubaa loo bëgg doo ko am képp koo xam ne amoo cheikh boo xamante dafay yar Sëriñ Tuubaa nee lépp loo bëgg doo ko am ñu laaj sëriñ bi ñu tax mu ne li annahu yaquduhu sheytaanu والنفس والهوى كما أبانو كو أمو شيخ التربية رك شيطان ما يدون سسرين كو أمو شيخ التربية هوى ما يدون سسرين كو أمو شيخ التربية دنيا ما يدون سسرين كون نونين سانتا دي الله بباح لأن من عدم شيخا مرشدا فشيخه الشيطان حيث قصدا سرين تبان لأنك كيب كن ياك سرين بولي جبل تشيخ المرشد لوح شيخ المرشد بقول شيخ الهدى شيخ المرشد لوح تسرين بي موني جانا ني مرشد موي اغوايبه mursid rusdu rusdu mooy àgguwaay bi qul uxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljinni fa qaalu inna samina qur'ana ajaba li yahdi ila rusd moo tax Sëriñ Tuubaa mi comprendre loolu booy xool ci xasidaam yépp buy ñaan du ñaan hudan rusdu la mooy àgguwaay bi alquran mustaqim te rusdu bi mooy istiqaama boobu ngay ngay am moo tax lana umrana lana badanan wahab lana rusda واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نا وقلبي ارشدا كون رشد غوغ نك سيرن دوبا نين كيب كو نياك سيرن بولا تي تك نانا لين الشيطان موسى سيرن والسلام عليكم